ci waawan a woote kon nak wuy ji leen ku jëkk wuy ji maam aas am sey ngërëm loolu ku am sëñ bu mel ni ci réew doo gëlëm alhamdulillahi alladi akramana bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi وردي الله عن شيخنا التيجاني وعن جميع خلفائه وعن شيخنا ووسيلتنا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه أيد الله ونصرهم ونفعنا الله ببركاتهم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم يلا دنا يني خم نجمعين ويلن أوتب يلا ماي أوتب أن خم بونيو دنتي جل لين يوك ثم قال أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح فيها بالغدو والأصال man yàlla ma déclare déclare ñu tabax jàkk ji nga xam ne dañ fay tudd sama tur di ma fa sàbbaal suba ak ngoon wa qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam man bana baytan li wajhi llahi alkarim bana allahu lahu baytan fi ljannat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne képp ku tabax jàkk wala nga bok sa ñay tabax jak te yàlla rek tax bu ëllëgé man na tabaxal kër sa aljana kon yàlla nañu yàlla boole fu ñu tabaxé jak suñ loxo dugg sa donte la mënu amuñ doolu ñu mëna tabaxé jak yàlla dellu waxat ne maa indakum yanfadu wa maa inda allaahi baaxin nit ki lépp lu nek si moom muy alal da fay fat da fay jeex imma ben nga dem bayiko fi wala alal yi dem doto gis dara dellu wax ne wama wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah lépp lo len dépenser te yàlla si walu yàlla di ngeen fa fekk yiwu ko gën fuuf ëllëg te yàlla misal nako neena masul lazin masalu lazine yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi sali habatin yunbitu safha sanabil fi kulli sunbulatin min miatu habatin misalam ñinga xamni dañuy génn sen alal dika def ci yoonu yàlla ni ngi melni nga jël sa ben pep ji suuf pep bobu sax gub ba dugub sax dugub dugub ba bot juróom-ñaari gub coupe bu su nekk am téeméeri pepp mu ne man yàlla noonu laay fule si kenn ku def lu baax te yàlla rekk tax te man sama ful sax ëpp na foofu donc jullit bi daal li mu am lii kontom dëgg-dëgg mooy li nga def te sellal ko te yàlla rekk tax muy lu baax loolu mooy compte jullit te compte yi bokk na si lii muy oote sëriñ Babacar Sy Mansour bii muy eggali tabaxu jumaa yi Tiwaawan jumaa yi Tiwaawan que Tiwaawan la nekk moo tax ñuy jumaa yi mais jumaa yi jullit yépp la wa anna al masaajida lillaahi te bépp taaliba seex wala ngay jullit ak tarixa boo manti bokk bu la yàlla yóbboo Tiwaawan bokk na si point de repère yi soror bi ngay séen rawatina nag nga fa àgg fa guddi parce que soror bi moo lay moo toujours moo lay guidé moo nekk centre ville moo moo lay guidé te bokk na si li njëkk a frappé bañ ko commencé ba léegi toog nañu ab biir boo xam ne yeggul te ku sañoon wax dëgg yàlla mu yàgg bu yàgg mais nag mbiru yàlla la di wax na rek ñun dañuy mottali ko malgré que lii jaamu yàlla kese la. waye dañuy mottali wërale suñuy wajur nit ñi nek woon ci Tiwaawan fi dañu judd suñuy maam nek ay talibé cheikh dem Tiwaawan xa ñëw suñu sëriñ Tiwaawan yëpp ñëw nañ fi maam Babacar ci ñëw na fi dégg na bimu ñew fi ñu ko dalal fële sa pépinière fa la fi naan si kër tubab alaaji Abdou ñëw na fi ay yoon yoon alaaji Habib waaw alaaji Mansour waaw Alaaji Abdou Aziz Al Amin mm-hmm. waaw il paraît bi ñuy inauguré grande mosquée bii sax Alaaji Abdou moo ñëwoon moo ko inauguré waaw ñoom mm-hmm. ñëpp ñëw ne ak xalifay murit yi mm-hmm. waaw Alaaji Fàllu amoon na fi ay tool waaw di wax ne Bambilor daal bari na dëkk yu ko mag si gox bii mais li fi yàlla def diina ak leer yemu ko ax benn dëkk yemu ko ax benn dëkk te man fàttaliku naa sax sunu waajur yi ñii tab ràbb nañ ay néegu ñax fii ba tàyyi di ko yóbbu Tiwaawan néegu ñax yu rafet yóbbu ko Tiwaawan lu nekk lañ daan def donc ñun lii ñuy def nii ñoom fañ tëdd yàlla na yàlla yokk seen leer mais kontaan nañ si parce que ñu ngi mottali wëllëre gañ seqoo ndax Tiwaawan Mm-hmm. woote bi daal bépp jullit mm-hmm. bu ko man na nga ñëw jaamu si yàlla dañ bëgg samedi insha allah ñëpp daje si jumaa ji bu 10 jotee ba 6 lu waaye am indi ko ñu yóbboondoo ko Tiwaawan dimanche ñu tànn benn délégation yóbbu ko jox ko xalif bi loolu lañ bëgg loolu daal moo doon oote bi. di leen santaat di leen gërëm rek surtout presse bi nag parce que yàlla def ne. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كيب كويا كار الك دايخ من نغا ليغي ليغي بو رافيت سال ليغي بنك اخ لو مانتي ليغي نك مو خم يالا دا فلا نوتو غا نيك جورناليست مو خم بنين فونكسيون بو نو اوكيبي مي دال نيغ لين دي سانتي ديال غيرم دي نيانال جام اخ يوكوتي يين خم سين بريس fu leen bëgg mu àgg yàlla na ko fi yàlla àggale barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ si yéen parce que yéen ay facilitateur ngeen waaw boo ko jëlee rek boo ko tasee rek dina àgg foo xam ni ñun mënuñ koo natt waaw kon daal yàlla na yàlla fay asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jéggulu di leen jéggal. ci waxi limaan rek liñ ci teg muy kàddu sëñ mu daaw Balla Fall mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ci Bambilor gii lu bari fekk ko fi mu yàgg fi lool ànd ak jullit yi kon ñu ngi nuyu limaan di rafetlu kàddoom di ko yaanaal yàlla yàlla ko fi yàlla doole bàyyi guddal ko fanam guddal bépp jullit wax ji daal mën naa bañ a sori sëñ mu doo Balla Fall mi fi nekkal sëriñ Touba jox nañu ndigal ne bépp taalibe bu nekk ci dëkk bi léggéey bi ñuy liggéey parce que yéen ko yóbbu ci jumaay Tiwaawan taalibe bu nekk ci dëkk bi bu la ci kenn man ndax dégg ngeen sëñ Muntaxa kenn jiituwu ko ci kon nun taalibe yi daf ko sëñ Muntaxa noo soññ kon joxe na ndigal fu waay mën a nekk samedi loo am na ko indi teg ko ci seen loxo ñi nga rafetlu nag ni ñu ko doxale ndax dañ koo def ngir bokk def ko ngir sa euh, yàlla ak yonante bi def ko ngir dëkkandoo kon nun taalibe yi nun jullit yi yëpp nañ ci góorgóorlu am ci pas-pas bu nu ci kenn man bu ci kenn man bambilóor ndax ni ñu ko waxee kat bambilóor wax dëgg yàlla yàgg nañu noo jox cër kon nag li ci des mooy nun am fulaak fayda la mag ña defoon nu fas yéene ko di ko doxal dëkk bi léegi yokku na toll na foo xam ne fii wax dëgg yàlla lépp lu nu bëgg ci lu baax lu am solo buñ ko góor góorgóorlu daan ko def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp suñ mu du ah, bala faa daal mi ngi woo taalibe yëpp kenn ku ne waaye man na ko ci def di rafetlu jaataay bi di rafetlu doxalin bi jërë ngeen jëf aouzu billahi mina sheytaan rajim laa xawla wala kaddu borom dëkk bi ndax empêchement moo tax ma jël kaddu di sant waa dëkk bi lu tax ndax mag ñi dañoo bàyyi ndono boo xamante ne fii xàmmewuñu murit ak tijaan ñëpp benn la ñu doon lépp lu xew si wàllu diine dañ ko daan bokk ndax réer wu ñu ne El mbay Mbaye Bassin la Tiwaawoon séddee woon Mbambilor ba ñu bëggee imaam moo fi andi El malik Malick euh, El Hadj Modou Kandji sëñ fàllu Mbacke mag ñi may ko fi tool taalib yi di fi ñëw boor moo tax xàmme wu ñu woon murit ak tijaan jumaa yi Tiwaawan nag dañ sa am cër julliti Mbambilor yëpp Mbambilor yëpp ñu leen di woo samedi rawatina jigéen ñi jigéen ñi lu ñu mus a yëkk ñoom ñoo sa man ñoo sa daan daan ñu ngi leen di woo lu waay man na ñëw ñu boole sunu doole ak suñu pas-pas samdi jox ko élimaan ak borom ndëkk bi ak délégation ñu yóbbul nu ko Tiwaawan jigéen ñi daal man laay woo jigéen ñi daan man si lépp yàlla yàlla dolli seen man-man yàlla na yàlla seen kàttan yàlla na yàlla dolli seen i xéewal yàlla ngeen fi daanante na ngeen daan mën a yàlla ngeen ñëw te manati ñëpp bi jaadam sama auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla suñu daje bu taaru bii te jekk te sell lool macha allah yàlla na ko yàlla mottali xel dafa dal xel dafa daj tubarkalla macha allah ku gis toogaay bi ni mu rafeteeg ni mu jekke kenn xàmmewul tiijaan kenn xàmmeewul murit kenn xàmmeewul laayeen kenn xàmmewul xaadir loolu dëkk bu rafet la ak bokk gu rafet kon macha allah lii yàlla na ko yàlla gën a dëgëral woote bi nag woote diine la woote ñépp la te tubaarkalla macha allah buñ ne neneng nee nañ àdduna nee nañ Sénégal buñ ne Tiwaawan nee nañu Touba ku gis toogaay bi ni mu jekke ak ni mu selle nga Touba ak Tiwaawan ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndokk yàlla nag bi ko Mbambilor xamee ba doxale ko noonu naka jekk ñun ñii toog nag di jigéen ñi ajaratu Binta Sarr toog sama wet Adja Ndiémé Samb toog ci sama wet dañu représenté jigéen ñi nga ñi ci allah rawatina nag jigéen ñi bambilor yëpp may rafetlu kàddu du saar ndax tubarkalla macha allah bu góor ñi jiitoo ñun jigéen ñi dañu ciy topp te bëgguñu nag jigéen ñi góor ñi law leen raw leen ci lenn ti ñu ko du saar waxee di leen jaar fa ñu daan jaar danañ ko defee nañ ko daan defee macha allah macha allah di ñaan yàlla lii ñu sëmb jëmale ko Tiwaawan yàlla na ko yàlla sottal kon jigéen ñi woote baa ngoog bu leen ci góor man bu leen ci ndaw man bu leen ci mag man. kon macha allah jumaa ji sunu juma la tiwaawan sunu tiwaawan la dekk bi noko bok bokk yalla saxal and bi jërë ngeen jëf. auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah mbok jullit mbok senegal mbok commune Bambilor mbok Bambilor maa ngi nuyu ñep di sante ñep di gërem ñu di balu ak ñep di leen baal di len wax ne sama toogaay fi tey ci wetu imam ratibu Bambilor El Mansour Ndiaye. ak imam Mbacke Seck ak kuréel bi nga xam ne ñu ngànk jumaa ji wala mbiru diine fii si dëkk bi ah ma toog ak ñoom di wax ci turu meeru commune bambiloor ci woote bi nga xam ne ñu ngi koy woote jëmale ci liggéeyu jumaa yi Tiwaawan muy woote boo xam ne moom si boppam moo waroon a ñëw fekk ko yàlla dogal ay gan ay collègue député am nekk këram ah mu am réunion bu mu war def ak ñoom moo tax mu yebal ma en tant que conseil municipal mais nag mu ñëwaale suturu délégué de quartier bi ma doon si Ndiassane 2 te chef de village yëgaloon ma daje bi maa ngi koy nuyu moom tamit di wax nit ñi rek ne woote bu ne woote nañu ko fi dajaloo bu ne dajale nañ ko mais woote bi ak dajo bi lépp si yàlla la jógee su fa la yàlla lay delluwaat kon lu imaam woote commencé waxtaan jël micro jox ay nit kooku mbiru diine rek moo ko saf mbir moomu lay woote muy tiwaawan nit ki nag la nga am moom ngay wane comme yàlla dafa dogal Sénégal yëpp riiru uti tiwaawan ci liggéey jumaa jooju bu ci Bambilor jiituwul waru see mujj ginnaaw ci commune Bambilor jiituwul mujj ginnaaw daaw def nañ délégation dem Massalikul Jinaan yóbbu fa enveloppe ci njiitu maire kon lii Bambilor sos nii dëkk bi di ko def bëgg na dëkk bu bëgg ko yóbbaale wala lu mu yóbbante mën na ko indi fii ci Bambilor nu yóbbaale ko ndax Bambilor kat taxaw na pour liggéey jumaa yi Tiwaawan bu ñu sañoon tey lépp lu ñu fay def waa bambiloor ñoo koy def lépp loo xam ne ñu ngi fay dogal ñoom ñoo ko fay dogal ndax dañu jeex tàkk ci maam El Hadj Malick si radiyallahu taala anhu jeex si sëñ Babacar ba ci xalif bi nga xam ne moo fi toog mbéy sëñ Babacar si di ñaan yàlla liggéey bi yàlla bu mu ump liggéey bi bañ koy commencé ba nu muy jeexee yàlla nañu yàlla may ñu fekk ko ànd ak wér yàlla may ñu si ndam ndam li mooy bu ñuy tudd dëkk yi nga xam ne seen loxo mi ngi si biir ñu tudd Mbambilor de kenn jiitu ko si. ndax jullit loolu mooy sagam lu jëm si diina jëm si yàlla kenn ëppalewu la fi kenn gën la si jàmbaar loolu day na sag te tiwaawoon nañu am tuubaa la ñu am kon diine ji mooy képp kuy jullit kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah oo nañ la si participation bi nga xam ne Bambilor bëgg na ko def maire wax ne képp kuy autorité di conseil takk ndomb tànk képp kuy chef de village wala nga délégué de quartier wala nga imam boo ñëwee jokk ak imam Mansour Ndiaye wala El Hadj Abdou Aziz Gueye chef du village lépp lu ñuy dajale samedi lañ koy def bu ñu ko dajale war ko yóbbu dëkk bu tedd ba dëkk bu sell ba muy Tiwaawan a ah, loolu nag yéen a ngi koy gis ci télévision yi ñu koy wane ñu koy wax ci rajo yi tey nag Bambilor moom moo décidé ne man maa chef lieu commune Bambilor kon lu ñuy démarrer fii ci Bambilor war waa Bambilor ñu si des ginnaaw te dégg ngeen histoire Bambilor ak sëñ Babacar si radiyallaahu taala anhu dégg ngeen histoire Bambilor ak sëñ Fàllu ñoo fi jaar ñaanal Bambilor kon Bambilor war na njukkeel ñooñu nga xam ne nit yu yàlla lañu jaaroon fi te ba léegi lañ fi defoon ba léegi mi ngi fi Bambilor foo dem si àdduna yaa ngi dégg Bambilor foo dem si senegal yaa ngi dégg Bambilor ñaan googu am Bambilor am ko te nit ñu baax tëdd fi suufu Bambilor bi loolu moo waral Bambilor lu ñu woote si diine rek ñoo su ma jiitu kilifa diine bu nekk ñëw na fi kon bu ñu demee ba ñu ngi liggéey jumaa yi Tiwaawan ñun waa Bambilor da war nañ see jiitu di fàttaliku daje ñu daan daje fi sama kër papa El Hadj Cheikhou Thiam fii dara yi Tijaan si département te ngi fii lañ doon daje ba léegi nii kon Bambilor cër boobu ñu ko cëral si diine yi ti euh, tarixa Tijaan war nañ mën a tax ba lépp lu ñu yëkkati si jëm si Tiwaawan rek na si Bambilor jiitu kon monsieur le maire mi ngi soññi ñëpp di wax ne ah mbir mii kat bu yeexee moom dina def lépp kon waa Bambilor kenn ku nekk si bugg a ba bul nangu maire def lépp niwal nga dugal sa loxo bul nangu imam def lépp wala chef de village ñun ñëpp nañu boole suñuy dërëm ak suñuy xaal euh, million def si biir muy góor muy jigéen pour yàlla may ñu si ba ngeen baal ñu wax loolu laa ci doon wax ngeen baal ma allahumma salli ala sayyidina asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan borom bi yàlla nañu boole jéggal di waxaat alhamdulilah rabbil alamin di santaat yàlla bu baax di sant suñu kilifa yi ci suñuy kanam di ñaan yàlla seen jotaay bi yàlla na yàlla barkeelal ñu ko waaw rek xanaa ci seen ndigal di leen fàttali rek woote bi nga xamante ne moom la xalif général des Tidianes yi woote ci liggéeyu ba di yeggale jumaa Tiwaawan ja di jumaa maam Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ci ndigalu imam El Hadji Mansour Ndiaye mii toog si suñu wet tabarakallahu ak ndigalu chef du village El Hadji Abdoul Aziz Gueye ak notable yi ci dëkk bi yëpp waajur yeeg boroom xam-xam yi ci biir dëkk bi ñu ngi fàttali mbokk yi woote bi nga xamante ne waa Mbambilor fas nañ kaa def dajale ko ngir yóbbu ko Tiwaawoon samedi lañ ko fas yéene dajale fii ci jumaa Mbambilor à partir de 9h ba 18h lu waay am te mën kaa indi ngir liggéeyu Tiwaawan boobu ñu ngi lay ñaan na ko indi fii ci jumaa ji à partir de huit heures neuf ba dix-huit heures su samedi incha allah leneen li ci topp rek kilifa yi ñu ngi woo daayira yi nga xamante ne ñu ngi ci biir dëkk bi daayira yi bëgguñoo lim benn daayira waaye bépp daayira boo xam ne yaa ngi yëngu ci xadra bi rawatina ñu ngi lay woo tabaarakallaahu bu la ci kenn mën ndax nag liggéey bi seen liggéey la yéen a ko waroon a def imaam defal leen ko chef de village defal leen ko kon nag incha allah ñu ngi leen siy soññaat bu baax a baax ci liggéeyu xadra ba la ngeen bàyyi ko xel ngeen bañ cee xaar kenn waaye nag tabaarakallaahu danañu sant suñu bàyyi tabaarakallaahu bàyyi Mbàkke Sekk mi toog teewal fi tey tabaarakallaahu bépp taalibe maam Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu kon moom it soññe na ci wàllu kuréel yi bépp kuréel goo xam ne yaa ngi tey ci biir Mbambilor nangu ñu dimbali ci yëgle bi waaye nangu ñu dimbali ci lépp loo xamante ne mën nga ko ci liggéey ba nga def ko ci incha allah bu ko defee loolu daal ci ndigalu président daaira yi nekk fii ci Bambilor yépp woote baa ngi noonu ñu ngi leen koy fàttali ngeen bàyyi ko xel ci ndigalu imam ak ndigalu chef de village wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waawaana woote kon nag wuy jile ci maam aas am say ngërëm loolu dëgg la ku am sëñ bu mel ni ci réew doggalam way ci waawoona woote kon nak ku leer woote na kuy ci maam aas am say ngërëm